lëkkaloo ñaar yi ñoo bokk benn la euh, dafa ni moom ci gis-gisam yoon gi mari Marius ñu téye ko ci kaso bi ndax euh, dana tax keneen dootul ñeme def li mu def noonu laa ko mënee tënk Moustapha Diakhaté nag tontu na ko indi gis-gis Moustapha Diakhaté bi ñoo kole Eh, jàpp na ni eh, loolu waxi dof la noonu laa ko mën a waxe waxu wax wax wax bu januwul maanaa la ayca waaw bu dee ci tubaab a gën a ñaaw sax hmm? ayca ah, noonu laa ko mën waxee Pierre gis-gis bu njëkk bi Guy Marius Sagna en prison l'autre applaudit limite l'autre dit du yëfu nit Papis waaw mais opinion la rek xam nga il faut respecter nit opinion am mm. koy nangul ko mm. waaw parce que boo waxee li nga xalaat bëggoo tamit teg si baat parce que tu as le droit de penser euh, mm. Pape Djibril rapport <coughs> xanaa ñu dimbali rek sénégalais yi nekk Turquie. buuba <laughs> merci <laughs> euh, nañ trop de. <laughs> avocat yi te ñuy wax euh, déposé nañu ay demande de demande na ko na gaa yi bàyyi Guy Marius waaw moi je pense que xam nga métit moom ak kaso kenn du ko yéene kenn vraiment donc li ñuy ñaan rek mooy Sénégal am dal ñu waxtaan et que euh, ku ci nekk wax li nga xalaat loolu mooy démocratie mais vraiment bu ñu sañoon aussi ñu dépasser circonstances yi yëpp Charles c'est une belle année waaw hmm. ah, gis-gis biñ ci am mooy réew mi moom ñëpp ko bokk. Hmm. ku ne war nga cee mën a joxe sa xalaat. Hmm. te du àgg fenn fi daal. bi ci topp. Euh, beneen gis-gis bi Miss Sénégal la ñu dem Miss Sénégal ci l'observateur lañ ko jàngee ñëpp xam nañ coow li ci tukkee euh, ba tax euh, Jomaa si Camara sax gis nañ ci ñiy génn di ko defendre la bokk polémique bu rëy la indi defe naa ku yeewoo ci. ma ni ku yeewoo ci réew mi war nga ko yëg jarul may faram fàcce wax waxam waxu mi Sénégal bi moom nee xam na ni rafet na te bon voilà peese na boppam buuba waaw mais kii euh, nu mu tudd dimanche 15h30. tour moom laa invité na ko gars yi seetal. bi avant sorti jomaase bi la woon lañ ko def. defal naa ko lu tax kaasuloo comme malal bi ñuy wax waxi Miss ma njëkk ci yow. <laughs> non non non parce que moom laa invité. ah ok euh, non loolu moom Miss Sénégal suñu doom la. Zeyna sama taaw moo mag moo mag Miss Sénégal. Ah merci. ay Fatis. waaw ah, mais xam nga la femme elle est toujours belle. de sa naissance à sa vieillesse. ancien spécialiste en miss. déedéet ba léegi. waaw d'accord mais dama ne. la femme est la beauté de la femme elle est. non ça veut dire s'il te plaît quoi. on sait que tu n'aimes pas Erdogan. de la naissance. non tu sais je bañu ma Erdogan mais dama contre sa position politique ak nu muy doxalee comment on peut emprisonner quarante mille personnes mais dañuy coup d'état. ba pare taw non quand même c'est pas le débat mais bon bref. naka la bàyyi ko mu dellu ci spécialité waaw ah, oui quand même. Eh, na dellu ci spécialité bi. day fay ah. spécialité bis. non je veux dire par là je vais te. je vais te ah Pape Djibril. ma waay ma wax. léegi bu ma animé ah. non léegi ah bi ma ko mën. mais non bon Pierre. bii man maay joxe kàddu bi <laughs> bon Papis doy na. ah euh, Pape Djibril vas wax na dëgg. ci lan. li wax ni dëgg la. kan. <laughs> soxna si li wax dëgg la. Euh, Charles. marche sobre la. ah euh, Ba. waaw mais nit ñi plus de tolérance rek xam nga takkal nañ ko raaya bi mooy Miss Sénégal. nañu def plus de tolerance soo yow loo xalaat ci Miss Sénégal bi. bon gis naa daal man li ma ci ëppal solo mooy sénégalais yi am nañ jot. jot moom am na <laughs> parce que buñ tolloon ci war a dem liggéey yi liggéey bi duñ jox njaboot gi comme ni ñuy def duñ fi ne naan rafet na ak ñaaw na mais soo wax nga dëgg fa lañ toll daal àdduna bi dafa toll yow tamit yow daal mel ni ku dem guerre denc ñaari bal yi ci gën a baax <laughs> bàyyi ba fay nga tiire non non non mais non fi nga génn foofu la buuba réew mi dafa métti dëgg la c'est-à-dire gis nga boo xëyee sénégalais yi ci internet la ñuy ne di wax lu am fulla ak lu eh, eh. amul fulla te temps ñuy raw laay dëgg la temps baa nañ liggéey mais nañ liggéey ñun sonn nañ de gis nga ñun ñii ne ci àll bi sonn nañ trop bon gis-gis beneen gis-gis bi ci mujj <laughs> man sa pare naa ci <laughs> alors présidentielle Guinée Bissau bi dañ ko jàng ci leeral point net euh, jiñ nañ président bi ñu fal ne ay hackers maanaam ay ay <laughs> bandi internet bi bi Sow doon wax léegi ñoo trafiqué résultat yi euh, ba si Soko Mbaalo gagné jaaxal na ma nag ndax ndax vote bi ndax vote bi dama ne yéene kaay moo ko bindee. Euh, ma ne nag waaw loolu la moo tax mi bàyyiwuma ma yeggali li mu fa xam moo bëri. Euh, waa man li ma jaaxal nag vote bi c'était pas électronique. man comme yaay distribué par la wax wax naa sama xalaat continuer distribuer vote bi n'était pas électronique. gars yi bëgg ne dañ ko ak euh, pour ne pas perdre du temps. non c'est boobu kii. déjà Papis Papis ah, jox la <laughs> non man man kay. fi mu la dictature reprend le pouvoir. man kay man kay fi mu ne nii mooy honnêtement mu prêter serment. Hmm. commencer liggéey liggéey waaye identifier chantier lan mooy priorité yi mu liggéey ci. parce que aussi pour man Guinée-Bissau dafa souffrir. ci parce que réew mu complexe la. waaw moo tax euh, honnêtement ak sunu voisinage bi yëpp je pense que aussi euh, si <coughs> les diplomates peuvent faire quelque chose. que ñu hmm? dépasser cette situation. Mmh. Charles. léegi <laughs> neex na daal après ñu changé. daal di kii sax ba. non Mbalo. c'est du cinéma. le vote n'est pas électronique. ba pare man affaire enfin ñun on respecte les décisions des cours de de la loi en Guinée-Bissau na le président élu Cembalo la position du Sénégal c'est la Guinée-Bissau est un pays ami et frère boo xam ne dañ ko war a taxawu. ko mhm. jàppale. c'est aussi des questions de sécurité parce que dañu bokk frontière. Donc euh, le Sénégal a toujours accompagné ce pays, donc nous lui souhaitons vraiment plein succès mm -hmm. et que aussi nous allons accélérer la coopération entre nos deux pays. Parce qu'en in fine, c'est les mêmes peuples qu'on retrouve sur les deux rives de la sur les deux la mhm. frontière. Mm -hmm. Donc nous avons aussi Dal Amfa, parce que aussi Finitolo, en Afrique de l'Ouest, vraiment euh, on sait que les Am Chiwalu, terrorisme on n'est pas très à l'abri. Mhm. Et côté Bobo, Sénégal, nous avons Diego Am solo pour stabiliser la sous-région. Donc nous avons vraiment aussi jàmm am mu am une transition au bénéfice des populations de Guinée-Bissau. Euh, euh, euh, ma dem léegi en fait nga li nga wax sànq si Modou Modou yi nañu nañu def comme yéen liggéey bu baax waa Guinée-Bissau dañu war a liggéey c'est-à-dire ils ont ils ont tellement de retard en termes d'infrastructure de de mais dans tous les secteurs ils ont ils ont tellement que bu leen yàlla mayee ñu nekk dans les conditions potentiellement ah di leen yóbbu ci développement lañ dem liggéey. Mm-hmm. c'est ça qui est important. so bon man moom gis-gis bi ma ci am damay poser question pourquoi Afrique élection yëpp am problème. <laughs> man c'est ça mon problème. ça aussi c'est une belle question. Euh, pourquoi waaw <laughs> ah, ma mais non kii donc gars yi ba mu prêter serment nag quand même ah, ba pare jege na président Macky Sall de. ma hmm. na président Macky Sall dootu taal mais man nekk euh, kii euh, ah, ku mel ni Moïse bon c'est une opportunité ah. pour le Sénégal. remercier ci bi ñu fi ñëwee aussi. ci ay autorités yoo xam ne nangu nañu ubbil ay portam recevoir ñu hmm. hmm. waxtaan ak ñun accepté gum na projet bi mais daf na def ci waxtaan ak ñi mu ci war a waxal ku mel ni mooy suñu forum bi ah. waaw ah ok non booba